ñu àddu ci wàllu njàng ak njàngale mu mel ni sax njiitu réew bi Macky sàll nag jot na lu toll nag ci juróom fukk ak ñaari milliards ci suñuy koppar loo xam ne rek dafa jëm ci wàllu ay matériel jëm nag ci université état wu Sénégal fi mu nekk nag yile équipement dina ko daal di jot rek jëm ci école publique yi nga xam ni dañuy jàngale ci jàngale bu kawe mi ginnaaw suba sax lay daal di doon jàpp rek foofee ca jëm ñaajo mu nekk nag ab loo scientifique ak pédagogique pédagogique yoo xam ne rek xayma ba ma nga toll ci juróom fukk ak ñaari euh, suñu euh, milliards ci suñuy koppar fi mu nekk ni nag njiitu réew mi Macky Sall moomee dina jiite li nu mel ginnaaw suba lay doon sax bu 11h jotee foofee nag ca jam ñaajo mu mel ni sax nag li nga xam ni moom la ñuy joxe rek jokk na ci jom nag ci enseignement bu kawe bi ak recherche innovation boo xam ne rek bëgg nañ ko saytu bu baax a baax rawatina nag doléance maanaam rek li nga xam ni nit ñi bëggoon nañ ko rawatina ñi fare ci mbir moomee ñu daal di koy amal foofe nag ca communauté universitaire bi nekk foofe ak partenaires yi nga xam ni ñoom la ñuy àndal ci bile liggéey mu mel ni sax commande matériel pédagogique yooyu nag dinañ ko daal di rek biral foofe ca laboratoire bu université bu coordination bu euh, mesri ci fàttali nag njiitu rew mi Macky Sall moomee da jëloon na dogal sax ci atum 2015 ngir lancé nag bile projet ngir nak ñu tabaxat du tollu ci témèr lo xamné rek ay euh, laboratoire la jëm ci ab yi ñi amal fofé ci établissement public d'enseignement supérieur ngir nak ñu gëna ñongal li nga xamné mom moy plateau technique yi. abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen jàmm